xibaar boo xam ne daanaka dana neex képp koo xam ne ab julit nga wala nga bëgg alquranul karim bi nga xam ne bu sell la daayira bi nga xam ne daanaka moo nekk xidmatul alquranul karim bi nga xam ne daanaka mooy taxawal internat boo xam ne bu am am solo la internat nag bu ñu ko déggee dana fa jukkee li nga xam ne mooy alquranul karim bu sell bi jàngal fa gone yi li nga xam ne mooy siin diini ba ñu xam ko ñoom ñooñee nag di projet boo xam ne bokk na ci projet yi gën a mucc ayib ci réew mi taxawal nañ ko nag te it commencé nañ ko projet boobee daanaka ñi ko taxawal waa xidmatul alquran nek daara ji nga xamni ni ñu ngi ko duppé tay surul khasir nga xamni ni foofee ma nga nek ci Touba mbacké fele ci keur baylat kon bayyi ñu ngi wo ñepp ño xamni danaka defal yalla mo leen tax a ñu ngi wo ñi nga xamni ñom ñepp danaka bëgg na alcorane bismillah ñu teewla ci sëñ bi légu kaddu yi mu ci tàbbal insha allah taala Bismillah. sëñ ni nga borom tey ñaan mboolem koo xamante la si ñaamadu. ñu ñaan de nga ñaanal mbokki taal bi nga xam ne bu fas yéene taxaw si dara jooy taxaw si sa numéro téléphone yi am na wéeb am na orange képp koo xam ne yor sa xaalis tey doon xaar foo ko mën a dugal foo xam ne fu mën a barkeel la doon xaar foo ko mën a dugal foo xam ne da nga ca am ngërëmul sunu borom loolee daanaka yomb na ci yow numéro yi foo ko yónnee ci wéeb wala orange moo ne gaa ñi danañ ca liggéeyal la ci li nga xam ne mooy alxuraan Seydina Muhammad nag daanaka foofee danañ ko fa bàyyi xel bu baax a baax ndax foofee alxuraan ku ko tudd tudd addis ku ko tudd li nga xam ne mooy ay jaar-jaaram loolu lépp danañ ci jàngal gone yi ba ñoom ñooñee képp ku dellu ci sa kër da nga xam na ngay taxawee ci sa wàllu diine da nga jàngale ci sa wàllu diine loolee tamit manqué woon ci biir réew mi loolee lépp nag mi ngi nekk ci ndigalul wala boog ci njiitalul ki nga xam ni moo nekk Serigne Dame Diagne nekk jëwrinul xatmatul alxuraan loolee tamit daanaka nekk ñëkk bàyyi xel foo feet feet plan bi nag moo nekk noonu yéen ñi may seetaan xam ngeen ni bu mucc ayib la tayit alxuraan mérito na loolu kon bu leen ci des ginnaaw